billahi min alsheytaan irajim bismillahi arrahmani irrahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñi ngi tey ji ñi ngi fii ci suufus Ndaam Sanusi ànd ak daairatu muhibbin al muxlisin ak télé bi nga xam ne moom lañ tudde Touba TV Argentine nga xam ne ñoom la ñoo ñëw laxasu ànd ak euh, waa daaira muhibbin al muxlisin ngir jàpp ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu borom Touba bi tey jii nag ñu taxaw ci dëkk boo xam ne dëkk bu am histoire la lool ci yoonu murit di Touba Ndam Sanoussi buñ déggee Touba Ndam Sanoussi mooy dëkk bi nga xam ne ci la Cheikhuna Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul keroog bi nga xamee ne jóge na ci tukkib géej gi liggéey liggéeyam bu rëy boobu nga xam ne moom la liggéey woon te yàlla suñ borom tabaraka wa taala xamaloon ne ko liggéey bi li ci nekk ci ay xeeti xéewal ñaari suuf rek ñoom ñoo ko attan muy suufus Touba sa suufus Touba dafa bokkoon ci nattu yi ni moom dafa delluwaat kon benn suuf rek moom moo des ngir mu indi fi liggéey bu rey bi mooy suufus Ndaam Sanoussi kon ci suuf si lañ taxaw nii nga xam ne ci ne bi ñu taxaw nii mooy néeg bi nga xamee ne keroog bi nga xamee ne borom Touba Xaadim Rasoul ñëw na fi ci Sanoussi fekk si suñu maam Serigne Sirelo ci néeg bi la ko dalaloon ci néeg bi la Serigne Touba Xaadim Rasoul daloon diirub juróomi fan ci weeru koor bi ba weeru koor wi jeex ci jëmmi néeg bi la ko Serigne Siré Lo daloon doon ko berndeel defaloon ko ak mu Serigne Touba ñëw gànnaloon dalak dalak moom defal ko ak ngan yéeme kon dëkk bi daa doon dëkk boo xam ne dëkk bu am solo la ci histoire ndax ginnaaw tukkib géej gi ci dëkk bi la Serigne Touba Xaadim Rasoul gin gën a yàgg lu dut njaareem maanaam njaareem rek lañ mën a tudd foo xam ne Serigne Touba yàgg na fa lu ëpp ay fan yoo xam ne def na ko ci dëkk bi ci ginnaaw tukkib géej bi kon dëkk bi doon dëkk bu am dëkk bi nag Serigne Touba bi fi ñëwee bàyyi na fi ay jeexental yu am solo ndax doy na histoire rek ñu ne néeg bi ci la borom Touba Xaadim Rasul dak nekkoon def fi diirub ñaar fukki fan ak juróom ci biir bi tamit boo fi duggee da nga ay sàtt la yoo xam ne Serigne Touba Xaadim Rasul ci la daan jàppee. dakaar gi nga gis ni mooy Dakar gi nga xam ne borom Touba Xaadim Rasul buñ ko daan jambal ay xeetu laax laax ak yu demee noonu ci Dakar gi. Dakar gi ci loolu la bawoo maanaam buñ ko daan jàmbal Dakar ngir def ko ci laax bi ya xooxi daqaar yi ñu bàyyi moom moo sax ba doon ak daqaar goo xam ne tey dañ koy ziare ci ginnaaw ni suñu kanam tamit ci lii mooy xeer wi nga xamee ne ci la Serigne Touba Khadim Rasoul daan teg tànkam bi bu daan jàpp ci biir barab bi tamit am na ndox moo xam ne Serigne Touba Khadim rasul moom moo moo ko daan jëfandikoo ci xeer wi ci biir ci biir ci biir barab bi kazalik ci biir barab boo fi duggee da nga fekk ay téere alquran yoo xam ne ku tedd ki Serigne Touba Khadim moo daan jànge da nga fekk yi nga xam ne ci la daan moom Serigne Touba Khadim Rasoul kazalika dëkk bi doon dëkk boo xam ne makkaan bi nga xamee ne si la Serigne Touba Khadim Rasoul euh, doon jullee julli korité mi ngi fi. tamit bokk na ci néeg bi nga xamee ne sëtu Serigne Touba bi nga xam ne moom la njëkk a teg bët di Serigne Modou Baara Mbacké ci néeg bi nga xam ne moom la jàkkaar ci la gane àddina jàkka ji suñu kanam nga xam ne Serigne Saliou Mbacké moom moo ko tabax kazalika euh, mooy jàkka ji nga xamee ne si la Serigne Touba Khadim Rasoul daan jullee julli juróom kazalika daan fi defee ay naafilaam ci biir weeru koor wi teen bi nga xam ne moom lañ gis suñu kanam it ci la mooy teen bi nga xamee ne ci la Serigne Touba Khadim Rasoul ci lañ ko daan rootale ay xeetu ndox yi nga xam ne moom la daan euh, jëfandikoo ci biir weeru koor yi kon dëkk la boo xam ne dëkk bu mag ñëpp bàyyi woon xel la lool dëkk la boo xam ne tamit dëkk boo xam ne bu am histoire la lool lool tamit ci yoonu murit kon daal ñu jàpp ne tey ñu ngi ci suuf soo xam ne suuf su tedd la suuf soo xam ne Serigne Touba Khadim Rasoul moom moo ko tànnal boppam ba tax mu weer fi weeru koor ba mu jeex def fi ñetti fan ginnaaw korité doog a yeewiku dellu foofu ci njaareem ñëwoon fekk tamit suñu maam ju baax jooju di Serigne Sirelo